nee naa leen seen mbégte rek mooy suñu bànneex saa su ne ñu ngi seet li leen di neex ñu di leen ko defal tey nag macha allah dañoo ñëw ci émission bu mag ah bu tudd nag ah, sargal jigéen sargal jigéen nag saa su ne dañ ko war a def ndax jigéen ci biir société bi jigéen macha allah bi nga xam ne ne mooy jur mooy ëmb mooy boot mooy nàmpal jigéen mooy suñu yaay kon nag jigéen dañ ko war a sargal macha allah ñuy nuyu ñi nga xam ne ne macha allah ñu ngi ci hôpitaux yi di ñaan yàlla yal na yàlla fëgg seen bopp waaye ñu ngi nuyu nag macha allah ñu nekk ci prison yi di ñaan yal leen yàlla génne fa ñu nekk ndax nag ñuy soppee lañ waa camp pénal waa rëbës ñu ngi nuyu ñëpp macha allah leen ñaanal yal na leen yàlla yokk xolu muñ waaye di ñaanal képp rek koo xam ne macha allah yaa ngi toog nag uh, sa kër di seetaan émission bi di Oumou Show nekk si tiis nekk si naqar ñu ñaanal yal na ko yàlla saafaral di ñaanal képp rek koo xam ne jàmbaaru jigéen nga bari jom loolu di teral say waajur di teral sa njaboot ñi nga xam ne ne macha allah dañuy jël fajar 6 heures du matin la ñuy yeewu dem ci géej gi macha allah di jaay macha allah ñuy jàmbaaru jigéen di sargal képp rek koo xam ne jigéen nga. di tourné nag di xool sama naataangoo yi nga xam ne nag moom laa bokkal plateau bi di nangooy caale mu baax mi tey nag ñu ñëw ci émission bu mag bi di sargal jigéen yaa Hadja maa ngi lay ziar di la sargal bu baax di la ndokkeel ndax nag sargal gi day njëkkee ci yow. ginnaaw nag bi ñu sargalee suñu marraine ba pare. Mm. Ndour Faye waaye dañuy njëkkee nag ci yow. MNF kenn du moom jàmbaaru jigéen. Ah, émission bi yaa ko moom de. Mm-hmm. suñu marraine bu baax boobu kenn du yow yaa xajaa. waaw maa ngi lay dalalaat ci sa plateau. maa ngi lay fay sama rakk ji ci plateau bu baax bi. macha allah tabarakallah plateau mm-hmm. bi nga xam ne. samedi 16 heure képp koo xamante ni da ngay sénégalais rek yaa ngi jàkkaarloo Mm-hmm. la télévision set tv mm-hmm. télé bi ñuy nduru ba noppi di ñu dajale. la télé qui nous ressemble et nous ressemble. sama rakk ji borom tubaarkàlla umu show. ndeysaan. tey nga ñëw ni sargal jigéen. ala daaw mee nga de. ko nag ci MNF may mun a ndur fay. wallaay colonel mu baax mi. ak a jigéen ji nga xamante ni la mm. bu ñu dee sargal jigéen ci moom lañ ko war a njëkkee. jigéen Naati Gueye barki démb ba mu ko décoré. ca place du souvenir fii laa la indil kado bi lay goy tubaarkàlla macha allah sama rakk ji nuyu naa la teewal ko fa fay naa la sargal naa la man itam mhm. di nuyu képp kuy jigéen ku ne ci àddina bi képp kuy jigéen ku ne ci kër gi mhm. képp kuy jigéen koo xam ne yaay nga waaw waaw. ba ci aji kumba njaay yaay nday mbay di nuyu mboolem jigéen bu fi toog mm -hmm. ngoore sama taaw maa abija sama taaw maa ngi nuyu taaw yëpp nday njaay mm, tubaarkàlla yaa xadi ñam nuyu naa jigéen ñëpp masha mhm. allah di nuyu mboolem téléspectateur. waaw waaw boo xam ne bu samedi 16h jotee rek. yaa ngi jàkkaarloog Oumou Show. teg sa ataaye teg sa café teg sa gerte gu tàng nag. ak sa tubaarkàlla jëri tubaarkàlla saay mu damis bi. njarum soow. waa saay mu ak njarum soow. ah kooku soxna Ngom da koo miin waa tubaarkàlla am. ay boobu jeeg. talim <laughs> kóor la macha allah chéri jantal Mara. ndeysaan. Mhm. ma bàyyi la nga présenté suñu yaay ju baax jooju daba jaañ ah, duudu xolle. sama yaay sama yaay kii sama yaay la. ndeysaan. sama xarit la. Mm. kii doomi buur géwél la. yaag moom ca Jidda. macha allah ñu yàgg ca Jidda. mu nekkoon kër Tàn fas Sall. wallaay na ko yàlla yërëm ma jigéen Diop. amiin tàn ma jigéen yaayu Karo. macha allah tàn Daba Diagne ñu ngi lay nuyu. di la sargal en tant que yaay. Mm-hmm. waaye en tant que magum géwél moo xamante ni. Mm-hmm. dangaa ne ci réew mi. di def lu baax di ko wax. boo nee Daba Daba Diagne duut xolle rek. dinañu xam yow yaay kan. ngay girif nag ci réew mi yaay nuyu naa la. Ah, ndeysaan ndeysaan laay dama jaay ndeysaan ma mhm. waaw bi ma ñëwaatee tabaramaar war tabaramaar mu baax waaw mu baax mi lool nag mhm. Mhm. Aïda Sylla Ndiaye. ndeysaan bu jëmb yoroon Ndiaye wan ma rasulilaay. sallallahu alayhi wa sallam ma ñëwaat nag fekkuma la fa. ndeysaan ci la ma sa yaay ne ñibbisi nga. dëgg la mi sow mi nag di sama doom spécial. Mm-hmm. moom bu sañoon maa fi may kenn. yaay na mbawoon su ma fekk daf may teral. di may yedd naan ma tànt ba jaañ lii tànt ba jaañ laa. su ma doon yow def lii su ma doon yow def laa. ndeysaan tubaarkàlla. di nuyu nag ñii ma seqal plateau bi ñuy xale yu baax. wallaay mm. toog tubaarkàlla. Mm-hmm. am jom am fulla am fayda. wallaay. tubaarkàlla nag di nuyu nag sama président de la république du Sénégal. ak ah, mm-hmm. dafa faj sama doom jële. ndeysaan lay am kóllëre. Ndiaye moo jëkk faj sama doom jële. ndeysaan moom soxnaam. ndeysaan. Viviane Wade. Ah, waaw la kii ñu naan Macky mm-hmm. ak soxnaam Marème Faye Sall maa ngi leen di gërëm gërëm lu amul àpp yaay Amadou keroog ba ma ko woyee tubaarkàlla ku ne bëgg naa doon man fekk mu jëkk may kii tubaarkàlla xaalis bari mm. naan ñaari million ah, la baax lool bu ma feebaree moo gën ci man la Macky maa ngi lay ñaanal yàlla na sedd. amiin yaa te lew ci kattanu yàlla ak yonent sa doom ji ma tudd. di ñaanal ñëpp bii nga dogo caam. bii nga dogo caam. waaw moo sëkur ndeyam de. xale bu ëppale yaayam macha allah topp yaayam bëgg yaayam. Daba waa macha allah ñu tourné waat suñu rakk ji borom Medina. Mm-hmm. ki nga xam ne mooy usu bébé. doomu Moustique waykat bu mag bi. yow boo ñëwee ci plateau bi da fi war a ñëw macha allah. ah ci sargal jigéen bi te yaa ñuy sargal macha allah. Mm-hmm. ñu lay dalal. waaw salaamaaleykum. macha ñu fi nekk ñëpp. di leen mhm. nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant. ndeysaan. di gërëm suma maam ji toog di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan. ak wér di leen ñaanal yëpp yàlla may leen gudd fan ak wér. ak sama gars yi di leen ñaanal gudd fan ak wér. amiin amiin amiin di nuyu waa Medina Fass Gueule Tapée Colobane. dëgg la di leen ne seen doom a ngi. parce lu ma xewle lu ne. Mhm, ñu dooleel la ah, ñoom ñoo ci gaaw. Mhm. di ma jàppale. di seen doole ak seen mën-mën. waaye tamit di sant suma yaay bu baax. ndeysaan di sant suma yaay. waaw ah, waaw di ñaanal suma baab fi mu tëdd. ndeysaan yàlla xaare ko àjjana. yàlla suuf boof ci kawam. amiin waay yaa di ko ñaanal fu mu fu mu ne yàlla ko gënal fu mu jóge. amiin yaa rabbi di ñaan suma yaay gudd fan bu baax. ndeysaan bu fekkee suma njëriñ. amiin yaa rabbi ci kàttanu yàlla waaye tamit di gërëm. ndeysaan suma benn mag bu baax. bu mm-hmm. gën ci man. Mm-hmm. ki nga xam ni mat na ma pap mat na ma yaay. muy buur. buur géwél buur géwél di ko ñaanal gudd fan ak wér ndeysaan waaye tamit di profité waale di nuyu suma jabar waaw suma jabar Sofia Ndiaye borom Belgique ndeysaan El Hadj waaye kiwi mooy yaayam ndeysaan yaayu mu ndaw maa ngi koy nuyu bu baax ah yaa gore waaye ah, am nga fulla de am nga fulla sa jabar waaw waaw waaw sargal jigéen ñu ngi koy sargal bu baax moom it borom Belgique macha allah chéri su bébé ah macha allah ñu bàyyi la rek ak mbokku téléspectateurs yi ah nga déwén juróom. Alaaji Papa Diop ñu ngi lay nuyu. borom Italia kenn du yow Papa Diop ak a baax. Ah, bëgg soxna Ngom yàlla na yàlla defal ko jaam. Sofia yaay ja baax na waaw. bay ba baax na wuy yoo gàcci kalama buur géwél yaay ja baax nay baay ba baax na wuy yoo gàcci ngalamaay buur géwél aji baaba baax nay aji baab baay ba baax na wuy l'international Gora Camara bàkk naa la mbokk bi yaay njaaga oro lëyi umu saw yaay ja baax naay yaay ja baax naay umu saw baay ba baax na wuy gàcci ngalamaa yi sa waaje taaru jigéen sëy la bul ko say sa bul ko kafe ah na la lew jigéen la yërëm ko ndax moo baayu abi siri bi yaayu ban jum sàmba yaa ami daal bi yaayu munaas jeng mooy yaayu el jaase waaw yaayu galas la

kani gay papa gay xaar yaayu uba ngom yaayu bébé ngom sama yaay ji wóolu naa la kani gay papa gay xaar doomu yaayu amina waaw waaw poti siri muule muule awa géy wëy yaa gàcce galaama yow umu saw umu saw bàkk naa suma yaay jee saxiir faal mbokk bi yaayu jiy laa ak Moulay waaw Oumou Sow yëngal yëngal Sow Siri Malick Ndoye Ousseyn Ndoye Gougou Ndoye yow umo borom Dakar sawaaje yow umu saw saw pulla ma yaaji sama yaaji sama newlo ma na xembaay yeeyu Abidjan woo naa la yàq yaayu Baba Jaañ mama daari mbay jaañe waa may saa woy naa la woy naa la woy naa la yow mu laay boku biayu jaga oro waaw boku biayu pour kewel yow mu laaj yow xale biile biile ñaan si ko ñu may la ko nga tàgg ko xale biile biile yaa ko neex yaa ko saf yow lay déggee xale bii le bii le yaa gisoon may la ko nga tàgg ko yow jibile jibile jibile jibile waaw jibile jibile wax leen um mu saw Oumou Sow fonk naa la fonk naa la Oumou Sow Oumou Sow fonk naa la fonk naa la Oumou Sow yaay dëkki fonk naa la yaay tuta markasa mooy chéri civilé civilé markasa markasa mooy chéri civilé civilé xale bii le bii le dama ne ku respecté yaayam jigéen ju mu gis rek war maal ko aussi bébé. xanaa ko mu birale rek. waaw tubaarkàlla kontaan nañu. yaa xajaa. yaa woy li la. wallaay dégg nañ fi mu duggee. déggal loolu. ci ci woyu Youssou Ndour te Youssou yaa woy la. mu dem ci kanigéey papa gay xaar. farami ci ndeer ci ndeer sama doomi ndey. ki ma bokkal benn maam sëtu mbaxar. mbaxar rek ay maamam. mbaxar da daan def sët bu mu am. Ah. boo juddoo boo ñaawee da lay rey. boo reewee mu yeew la. baxar borom ko réew mu rey ku ñaaw mu yeew barkal la kon kontaan naa aussi bébé macha allah dëgg la kooku suma yaay day xaar ndeysaan mm. euh, ma wax ci moom ndeysaan moo ma ma naan Ousmane fii ngay teg sa tànk ndeysaan fii nga war a taxaw mm-hmm. li nga war a def ak lu mu am lay njëkk a woo barki unit bi mooy hmm. booleeg suma baay jooju nga xam ni hmm. dama koy ñaanal lekk gudd fan ak wér buggul sax may wax turam ci télé yi ndeysaan maa koy ñaanal di ko ñaanal gudd fan ak wér tonton petit papa laa mën a wax ndeysaan nee naa la yow maa ngi lay ñaanal gudd fan waaye nag lépp rek suma yaay la man lu ma am suma yaay la hmm. lu ma mënti am suma àdduna suma yaay la balaa maa am dara te man nar am Mhm. maa ngi ñaan yàlla man su ma yaay su ma ko naree sut ay fan. Mhm. yàlla yàlla wàññi samay fan. jox ko yàlla tere ndeysaan waay ndax lu ma am rek moom la. ndeysaan ndeysaan loolu ñaanu waajur mhm. waajur a koy ñaan. dëgg naan man su ma naree dem. yenu naa lépp doom toog. waajur yëpp loolu la ñuy ñaan waaye du def. du rafet rek lay def suñu yaay. ndeysaan moo tax. damay ñaan xale bu ne suñu kanam muy suma morom bu ne. di ko ñaan di leen ñaax nañu liggéey rek xam ni te lu ñu liggéey lu ne rek nañ ko jox suñu yaay mm-hmm. mm-hmm. waajur yi ndax ñoom ñoo tax ñuy liggéey dëgg la mm-hmm. waaye di ñaanal tamit mm. suma jabar bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér xam naa nopp nga sa jabar ah, eh, eh, di di jël sa eh, ngoy di habibi fii mën ma def impu ni yow tam li mbaa la doy na war daal ah kaaru daal critique na jigéen sa jabar daal xam naa ni assurance na kii dootul takkati ñaari maa ngi nii di jantal Mara ah, du dégg. ah yaa Cheikh Ali war nañ ci <laughs> bu mag ba ci Dakar. macha allah yaa Cheikh Ali xam naa ne ci kanam tuuti di ngeen ko gis. directeur bu mag ah macha allah Kër Rasoul. bëggul lu dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ah, ki nga xam nag macha allah Penda Diallo moom lay nooyee suñu boobu. Mm-hmm. ci les femmes VIP. nee sargal jigéen bi yéen ko moom. jigéen mooy suñu yaay ndeysaan isa suñu yaay moo nu jural suñuy doome waaw nit ku nekk war nga xam lii sa yaay doon daj ëmb la juróom-ñeenti weer benn bés xaw kàr waaw nañu yërëm sunu yaay mu saw yoon wi metti na te sori nañu ko ñaanal ndax mooy sunu yaay waaw ju dugure ndéeg baay waaye fulla fayda boroom lay tollool ngay umu yaay mooy ki nga xam su mettee moom ngay gis su tawee baa muy naaj moom ngay gis yaay mooy fekk doom toog waaw xelam dem mu toog di waxtaan nag doomam ñëpp ko romb di daaw waaye yaay booy moom du daaw umu saw àdduna kumpa la saa boo yeewoo gis lu la yim li ko ëmb lu bari la yow xoolal géej gi ni mu yaato sandil say bët xamoo mu yam yow asamaan si ni mu yaato sandil say bët xamoo mu yam li ko ëmb lu bari la sawaaji sawaaje yaw du baadu li ngay bàkkoo sawaaji sawaaje yaw du baadu li ngay tiitaroo nga gis waa la mu yor yow ki ñaan daa di lay dab nga yóbbu ko ci sëriñu tariyaax mu tàkkali sa goom ëllëg waaja romb laaya lamboo ay sagaram nga xool ko ba seppali koog nga foog ni yaa am ndam day ma bàkk yelaan ndeysaan wow waa sambati sambal man dawa galoon ndeysaan umu saar jiringone malo be samay kulimatu singindaade man faali kuma naat nooyi samaam yàq yaay Baba Jaañ maam Mataari Mbay Jaañ sam soo mu laay ak sa maam mbokkub yaay mu laay gëy njooro gëy njoor gëy njoor baasi bàkk naa du yàgg ba ngay ñoom sama xarit baa ngi ni umu saw man duma daw man mi duma daw loolu bokkul lu duma bàyyi ba mu metti ma war leen gannaaw yéen ñi samay xarit ngeen nga naan jilaani jilaani jilaani sama xarit baa ngi jilaani jilaani jilaani sama xarit baa tagit gi tak tak tak roj sa gi gi tak wax sa gi gi daj daj daj jilaan xanaa xamuloo jilaan mi elaj gi daani way sama xarit baa ngi nii kookoy saxiir faal waaye jilaani sama xarit baa ngi nii ndeysaan mbokk bi ay abiloo waxal ramajaan sa yaay gëgëgëgët Jeylaani doo gën dirigoone malaw be saaf koo ko defal defal doomi gay waaye tey ma bàkk kani kay papa kay xaar siri petit papa bàkk naa la sama baay ci waaye alsaan mbay alsaano alsaana sama baay ci alsaan mbay bàkk naa mbokkum yaayu kani kay papa kay xaar monsieur le maire Bamba Fall monsieur le maire Bamba Faale eh, waa suñu maire umi mbooj mboojo mboojo faraay umi mbooj sama yaay wax ay mboojo ay mboojo ay mboojo ay mboojo ay mooje ay mooje mooje fara waaw ki may bëgg way mooy Luisa ki may bëgg way mooy li xaatatil wujuri tarniyul alal bi tey ni wal jasi way nisaan borom jurul borom jàpp ndar xabaan borom dookaan ak umul xuraan aji baaba aji baaba baaba baaba yaa baax lool ni ma waaye ku ma gay siri ku ma gay siri niinoo bàkk naa la loo dund doy lee ku magay ndeysaan waxal waxal su baaxul su bul di forcer yow su baaxul su baaxul su bul di forcer waxal su ummi su baaxul bul di forcer su baaxul su bul di forcer waxal zarzar bi zarzar bi sama mafia bi mu lay su mi su bul di forcer baaxul su baaxul su baaxul bul di forcer ndeysaan baaxul bul di forcer su waaw loolu lan la sa mot de la fin ndax fi mu toll ni gars yi seen yaram tàng na te émission bi wàcc na ba dëgg la waaye nag nañu suñu maa ngi gërëm ñi nga xam ni fi laa macha allah parce que dañoo am tuuti retardement ak suñu. samay tëggkat ak musicien ah neex na de. waaye xam nga nga def improviser. lu neex. nga def improviser ak nga xam fii nga leen fekk. yéen a nu sargal. ndeysaan. jëlal bële jëlal bële waaw waaw. jox ko moom jox ko moom dina ñëw. waaw dina ñëw suuf. Mm-hmm. nga def ak improviser ñoo xamul. dañ ko am mm-hmm. waaye neex na tamit mm-hmm. waaye. di gërëm di leen gërëm di leen sant ndax aw seen fay. wallaay macha allah toog ci ginnaaw. Mm-hmm. wala bañ a ñëw. wallaay waaye maa ngi kontaan ci bu baax. di leen gërëm. waaye di gërëm xam nga live yombul. yombul waaw. ñëw fii di playback da nga ñëw live. di gërëm suma père Ahmed. Ahmed nga xam ne fu ma ko fekk si ma Chéri Fatou. waxkat bi ci réew mi nga xam ne. suma grand dafa may conseil lu bari barkalla daf ma daan jàppal ànd nañ fu ne joué ji. borom baax la fu ne ànd nañ ko joué ji. ba mu jàppee ba léegi bawul. jabaram baax lool. dëgg la am jom teel a xëy di guddee wàcc jàppale Mouhamed. Ah, dëgg la ko respecté Jali Samb. dëgg la te lépp ci Ahmed mii la. Ahmed la baax bañ la duppee Seydouna Mouhamed nga dugg ci lislaam. billaay yow ku saafoon teg yow sax am na jàmm. am na jàmm billaay barkalla macha allah. ndeysaan Ahmed ñu ngi lay moom ba léegi rëccoo ko. ndax mu ngi may jàppale mu ngi may dooleel te bu ko neexoon ne xale bu ndaw laay liggéeyee waaye def ko mu may jàppale mu ngi may dooleel di gërëm tamit suma xarit yee ma àndal ñi nga xam ni daw ñu benn yoon mm-hmm. Jeylaani moom laal na fi laal yu neex moom Jeylaani ah mbokkum dem abiloo sama waa ji abiloo sama doom sama xarit doomu nday ma abija neex na daal waaye tamit di gërëm sa ñaari doom yi. Eh? ñi nga xam ne dañuy ñëw ci en pause jënd nañ billet sax nee ñu ngi waaj lu mag. jënd nañ ba pare Khadija. Khadija sama doom la bis bu ñu ñëwee foofu ci kanam la ñuy toog. Khadija na sama doom la Khadija. waay kontaan ci moom. kontaan naa bu baax donc jàmbaaru jigéen. kontaan naa merci à vous waaw. Ah, kon macha allah mbokk yeeg xarit yi kooku nag ah, moo doon suñu doom di doomu Kani Gueye farami ci ndeer macha allah doomu Alsaan Mbay doomu Ngoy Caali mi toog. Ah, papam nag mooy moustique mi ñuy jooyte noppee guñu. macha sa bopp sa papa moustique. pour waaw. doomu suma papa moustique. di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana. amiin amiin. suma papa nga xam ni. waaw. woy fi lu ne. rappelé ñu ci ci ay affaire am. sutura lay ñaan mu barkeel lu ma mën a am na ko gënal oh. laaw dama lay ñaan di la ñaan li gën ci man laaw rabana rabana mu ne woon rabana maam yàlla mu ne yàlla yaay guddi yow yaay bëccëg sutura lay ñaan mu barkeel lu ma mën a am moo ma ko gënal mbaxaan di la ñaan bàcc jo li gën ci man mbàkke mbàkke du war mbaam balaa caat mu wari naas xaadima ko liggéeyoon bamba màgg na laa ilaaha illallah su koy naa mbaam meruloo su koy naa mbaam meruloo mu ne ko soo ma merewee woo ma yee dema yaayu jeewa yaayu ndey faatu kamara yaayu jeewa yaayu ndey faatu kamara su la tooñatee umu woo yee dema la la la la la la la la la la la la la Amadou Fall Sir Ndiaye biram ñeme ma jëngaay góor dëgg bàyyi la la faal maa xaat mi ci isa jéey faati pendaak la sukkaa bég ngoone damel fu njugu damel dajalaw damel sama yaay faal bul di jooy sama baay bul di jooy ndeysaan jaamul yàlla yaayo yaaye yaaye ndooy eh, eh. ndooy maale maram ndooy Adja Fat Ndooy mi nga xam ne tubaarkal la ndeysaan mustig mu wax moo ko doon denc muy sama xarit yaayu Aïcha yaayu Aïcha di sama doomu ndey di sama xarit mhm. kon ñu ngi ko nu nuyu di ko rendre hommage ci li ñu wax tubaarkal la macha allah sargal jigéen waa mbokk yeeg xarit yi macha allah seen doom seen xarit muy waaj événement bu rëy incha allah kañ samedi incha allah samedi waaw mooy tey ci guddi rek. samedi le 9. incha allah incha waaw. di waaj bés bu mag. bés bu mag. di sargal jigéen ñëpp dem tey si guddi fekk ji ko. incha allah allah. sargal jigéen ngeen fekk ji ko seen doom seen xarit waa Medina yéen ñi nga xam ne macha allah moom yéen lay tiitaroo yéen it moom ngeen di tiitaroo. Mhm. seen doom la xale la am na jom mu ngi góorgóorlu. waaye mën na def na ko fi ci aar El Hadj gis nga sarak li def na nga def na jënd ay ticket mhm. na nga mobiliser dem jàppale ko mhm. kon nag yaa xajaa waaw xanaa ndaanaan yee ngi xaar nee naa lu guddi gi di gën a dem rek waaw muy gën a neex nañ ko ñaanal yàlla ñu dem rek wér euh, def jingal ànd ak waa régie ñoom Pape Maguette ak ñoom Penda macha allah euh, ñu dem ñëwaat mbokk yeeg xarit macha allah xam nga ne yéen safoo seetaan émission bi di Oumou Show Oumou Sow nag euh, dafa ñëw tey sargal jigéen sargal jigéen nag boo ko déggee mooy macha allah suñu yaay yi ajaratu Kiné Lam mu baax mi macha allah ajaratu euh, ma jooju ñi nga yàlla na xippee aljana macha allah ajaratu nday bay jin ma jin ma macha allah ajaratu xaar mbay ma jaaga ku lim rek da ngay juum xam naa ne ah, yaaxa jangooy caal dina eggali mhm. ci ñi nga xam ne ñooy jàmbaaru jigéen ñi nekk ci dëkk bi mhm. nekk ay grande dame mhm. way ba toog seen i kër macha allah uuf seen i sët kenn déggu leen ci coow macha allah ajartu ki ne juf jaaga ñu koy ñaan yàlla na ko yàlla xare aljana muy référence muy jàmbaaru jigéen yu ñuy sargal jigéen dañ ko ciy boole ndax ñeen fukki guddi yi incha allah rabbi suba la kon yal na xippee aljana ñu ngi koy ñaanal yal na ko yonent bi teeru ci àjjanay firdaws suñu yaay jaaga duñ ko fàtte mukk ci bés mel nii dañu daf ñu ci daan encouragé mm-hmm. macha allah kon nag xol yi dañuy bañ rek mu tooy ah daba jaan du xolle mm-hmm. ah yaa fi représenté Adja Kinella mu baax mi mm-hmm. yaa fi représenté ajaratu Soda Mama Fall yaa fi représenté képp rek koo xam ne ne instrumental bi Sorano macha ñoom ñoo ko yoroon tey ji euh, ñuy rafetlu sa teewaay di di la wax dalal ak jàmm ci sargal jigéen bi ndax yéen ñii suñu yaay yéen a jara sargal wala wala bilaay woo seet si